doole mooy guddik rañaan gi yonent bi alayhi alayhi alayhi wa sallam rañaane woon jóge Makka dugg naa wax ji jóge Madina dem Makka jóge ma jóge Makka dem ca Baytul Maqdis guddi la gu tedd guddi la koo xam ne li ci yonent bi alayhi salaam am beneen yonent amu ko ci benn benn yonent amu ci lim ci am mooy dayaaleeg boromam nga xam ne kiiraay kiiraay yu bare bare sunu suñu moom dindi na ko ko yàlla nag du jëmm ju ñu gis moom jëmm ju ñu gis ak nangam sayyidatuna Aïcha umul mu'minin radiyallahu anha laaj na ko booba nag da gone la su tànk la xanaa xëy si nag nit ñi di xëy seen dimanche di ko di ko laaj waa di ñëw ah kon kon kon gis nga yàlla mu ne ko gis naa ko de mu mel ne leer waaw ñu ne nag gone la gone la moo moo tax mu lakk ko noonu yàlla kenn du ko gis yàlla du jëmm mu ngi yàlla du du jëmm ba ba di ko gis su su su sama ne ne woon na kenn du xam yàlla ku ku du yàlla ba nga xam ne ay jeexitu nag nun ñi nun ñi am nañ am gi ñu am te te tegtal la ci yàlla waaw ndax bu yàlla amutoon duñu am kon moom yàlla am na xam ne soppeem boobu jaamam boobu mu sopp lool mu Muhammad alayhi salaam may na ku ne may na Moussa alayhi salaam soppeem ba mu wax ak moom ca Tuur Sina may na ko ko waaye nag may na it Isa alayhi salaam muy ak leeram may na gaa yu bare bare rek may na leen kenn ku nekk may na la dara may na may na sayiduna nuuxin alayhi salaam may na ko mayam yu rëy ibrahima noonu ismaila noonu isaaqa ñëpp daal may na leen waaye li may kii moom moo ëpp la la la may yële muy rëñaan subhaanallah si asra bi bi abdihi joojee nga xam ne moom kon moom moom la yàlla gars yi dañuy laaj naan waaw naka la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën a jógee Madina dem Màkk ci guddi gi dil si waat doxub ñetti weer la ñu wax xaw ma léegi loolu ma nekk naka la naka la mën a xottee diile yi asamaaw yi moom su moom tontu na ko man maay ki nga xam ne maa ko def maa ko rañaan suuf yaa ngi jàmbaar lañu danañ jéem a daal gëstu la lu mu doon am na lu ñu tuddee tatawur tatawur évolution mooy nga soppaliku ni nga mel xotti kiiraay asamaaw yi dem ci kaw loolu su su su wenk yi dañ koy wax ñoom nga xamante ne loolu intervention amoon ne nee ñu lépp lu lu am lu islam am ci ay kawtéef dagan na ci awaliyu wali waliyu xeetam wi kon daal ma awaliyu mën naa am loolu ci yonent bi bi alayhi salaatu wasalaam bi muy xotti diile yi ñu ko noonu ko su fekkee waxee ñoom tatawur la tatawura bi tatawara bi jismihi wa ruuxihi maan waxtaraxal ak tibaaq jëmmam ja ruuxam nga moo dem demin woo xamante ne melokaan wi mu yor day soppiku ba mu mën a xotti diile yi nga xam ne noonu nga xam ne wàllu yi am nañ ko ci wàllu yi mën naa jóge fii dem màkk dikkaat ndaka noonu salaay salaam moom kon noonu noonu la jóge woon Madina dem dem màkk ci guddi gi loolu kon kon moom lu lu lu lu yomb ba xam la ci tasawuf tasawuf ñoo xam ne ki ñoom la ca des mooy ci ci Asham bi mu njëkkee nag Makka dem baytul maqdis fa la daje ak gaa yu baax yi yonent yëpp yu ko jiitu woon nga xam ne nag mooy seenub sët ba noppi doon si si si seenub sang daal leen di jiite ak julli julli gi nag julli lu mu doon nafi la doon na ko ndax du du ñoom julli farata wàcc leen te julli suñ julli gi moom ginnaaw ci jamono yonent bi alayhi salaam ci la feeñ waaye demutoon ci jamono si Aysa moom kon amoon nga julli nag waaye julli bokk ñoom kon sa stratégie la ma jiite leen foofu ngay xamee kon it ne kan ruu kon kon dana jël ci waat adduna foofu ginnaaw yonent yooyu xam ne dem nañ bu yàgg ajjana bu yàgg yàlla di teralal teral soppeem bi tax mu mu wàcce waat leen baytul maqdis ñu ñu daal di doon ay jëmm sàppe rang stratégie la ma jiite leen waaw suñ tubaab bi mu koy leeral nee na dawi na xaay suñ xoolee set na ndax ñoom seen sët bii ñëw gën leen ñoom ñoo ñoo nangu ko wa saada fihim nga sange na leen wa baanaanhum waa di xotti nag di la yéen ak wéy ba ba ba ba xamatuñ ci moom dara loolu kon moom yaa ngi ciy gis ne kon ko kon xëy xeetu mu sallallahu alayhi wasallam ko kon moom moo gën noonu ñii waaye kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna su ngeen defee ndigal yi lay wax de kon ñooy gën waaw bu defee ndigal yi ñooy gën waaw bu ndigal yi bokk na ci julli gi nga xam ne say fallu bu baax ma dara wax naan liggéey bi mooy julli ñu julli julli nag waaw ba suñu Abdou Aziz si al imnu fekke woon ko mu di ko waxtaane ca jàkk juñ doon teg xero moo doon teg xero kero kero ca soowum ndo ndorong ba fekke woon ak kero muy wax naan dangay dem seetlu ji dugg ci wana wa seetlu seetlu ba set kuy dem ci wana wa dangaa war a am temps jël jël si temps daal temps temps tuuti ba am seet ndax ni yàlla bindee jëmm ji faaw dañ koy dañ koy muñal muy wàcc di wàcc ba set wëcc bu setee wëcc nag nga raxasu raxas barab ba ba mu set waaw boo ko raxasee ba mu set ndànk rek ci li li ci biti rek ngay raxas la la ca biir ca biir la kon kon léegi ci loolu mi ngi bokk ci biir bi kenn raxas biir biti la ñu raxas ndànk bul yàkkamti bay raxas raxas baax mën naa indi lor jamurit bi ñuy wax da koy indi kon nga raxas ko ndànk rek te doo ci war a nag di raxasoo di yóbbaale ndox mu am saabu wala nangam ndox mu ndox mu amul dara dañuy raxasoo waaw moo loolu mooy dindi suba si so so yahdikallah boo raxasoo noonu ba noppi nag dikk nag waajal jàpp jàpp si si si si ba tey moom mooy wax de jàpp mi boo boo boo ko dee waajal nga wër ndox mu mu tulaq mooy ndox mu boy boy muy ñàkk tënku ndox moo xamante ne xet ga soppikuwul ca soppikuwul melawoo muy muy couleur ba soppikuwul maanaam daal defuñu ca parfum defuñu ca sunguf defuñu ca diw defuñu ca dara loolu koy soppi tey defuñu ca it eau de Javel eau de eau de Javel kenn kenn du ko sotti ci ci am ndox mooy jàppee wala wala nga di ko sangoo waaye nag sa sa sangu sangu farata la waaye nag bu dee da ngaa ubbi ubbi bi fekk fekk ca mu am mu am eau de Javel yàqu dara nga daal di nga daal di tàmbali njàpp mi daal di yéene soo ko fàttee nag ba ca xarkanam ba foofu baax na foofu foofu yi farata yi waaw raxas sa loxo ba mu set bu doon da nga koy dugal ci barab dañoo bëggoon mu set ba noppi bu dee dugal ko ko ci it loxo bi nag set sëñ Cheikh Tidiane si almaktum daa daa daa ko dégg wax naan ndox su tuuti nag nga di ko jàppee bu ñu la bul yàq ndox mi waxuñu ne nga defu ngay tabasu maanaam tabasu waxuñu loolu de da ngay jàpp kon nag kon da ngay ragg cër yi pënd baag yooyu léegi islam dafa civilisé dafa xay nga daal di raxas loxo yi booy raxas loxo yi ba takkoon ab jaaro jëru nga ko dindi jëru ko loolu loolu loolu bi daala boo digalee sa sa baaraam yi digale ko maanaam lee rab bale loxo yi baaraam yi te loxo yi tooy na kon léegi fépp tooy na kon nga daal di raxas noonu boo nappee daal di guuxu ba xam bi bi raxas loxo yi xool nga ndox mi ba xam nu mel couleur bi dafa changé wala yooyu nga nga daal di guuxu ndox mi ba xam ndax ndox mi caf gi changé na am déet bu dee changé wut baax na loolu nga daal di nag raxas xar kanam bi xar kanam bi mooy farata ju jëkk ji xar xar kanam bi nga raxas ko nga raxas sa xar kanam topp ko noonu ba jàpp mi jeex boo dee raay sa bopp bopp bi raay raay ko raay bu jëkk bi mooy farata raay ba ca topp nag dé- delloosi gi moom it sunna la baax na de baax na de waaw nga nga raay ko delloosi ko loolu loolu baax na man nga ko it yeesal waaw nga xamante ne lu lu am solo la jàpp mi noonu daal boo dee raxas conce yi nga dem ba yëg conce li ba ba ba nga xamante ne leer na naññ ne fi yàlla waxoon ne mooy conce fi mu yem foofu xanaa day xanaa day xanaa day mat na ndax ndax weesu nga conce dëgg-dëgg waaw boo dee raxas tànk yi nga raxas ko ba mu yëg dojor bi nga xam ne leer na nan nañ ne dojor ba raxas nga ko ndi nga doon raxas ci sa tànk yi rek loxo yi rek nga raxas sa tànk yi ràbbale baaraam yi sa baaraam yi loxo tànk yi nga xam ne kon léegi kon fépp tooy na kon njàpp ñoo xanaa kon yooyu rek xanaa moo ci matoon kii boo jàppee ba noppi nag daal di fas yéene julli sa yére yi nga soloon na nga ko seet ba xam tubay jaag mbuuma ndax sobi takku ca loolu loolu mooy amu mooy ak tey soo ko tëyit moom da niw ca waaye nag bul tey bul tey mukk ci àdduna di sol mbubb mu am sobe xool ko nank rek jëru sax sonn nag coono boo xam ne yàlla tiguñu luñ mën xool ba xam tubéy ji taq na ba ngay seetlu ci war a war a nga ko xool mbuum mi ba xam taq na mag ñi sax dañ naan di naan sax ku dul julli xoolal fonkul julli kenn du julli ci mbuum ndax dañuy ragal ne mën naa am sobe si du ko fonk daal waaw kon yow na nga fonk sa mbubb sa tubéy daal di fonk nag fi nga jullee moo xam dangay lal kaala moo xam dangay lal dangay lal lal ak sa jaada ab der bu ma ni doon loola ne na li tax mag ñi da daa wut sa jaada yoo xam ne bu jullee ba noppi dañ koy lem daa gi sax ñaan bu bu jullee ba noppi lem ko ndax soo ko lemut seytaane mën na cee dox loolu lépp dañoo bëgg rek bañ sobe kii ca nga xamante ne kon yow mbubb mi yére yi ak barab bi set na daal di yéen julli allahu akbar sëñ bu mag bi ne woon na sa saa bu ngeen déggee allahu akbar la muy firi mooy yàlla màgg na lu lu dikkaat da koy feddali saa ne su ngeen déggee allahu akbar la muy wax mooy li ngeen lu ngeen nekk lu mu baax baax dégg ngeen lu ko gën daw leen jëm ci kon kon léegi loolu loolu maa ngoon ci ci sa si rek waaye léegi salaa salaam kat yéeg na ca suratu nañ mi nam koy waxe ba ca jannatul ma ma waa ba yéeg ca sidratul muntaha dem foofu foofu la jannatul ma waa ne yéeg na dem na ca pée yu tedd ya dem na ba sena jibril mënatul dem ba raf-raf mënatul dem moom képp mu dem yàlla wax ak moom diyaaleeg moom secret mi nag yoo xam ne moom maanaam moom moo moo moo koy tigaat si képp ñoo ko waaw ñoo ko jago daal yàllaa ko jagleel xam ne moom ay ay ay secret la saa salama daal di dikk fajar si fajar saa salam ñu ñu ngi ko julli see ci noonu ñibbi si na fajar bi teganti gi sax sayyidatuna Aïcha umul mu ne ndax man day maa ngi moom a tëddoon te musul di deñ ma yëg ni mi ngi ci kaw lal bi kooku boobu boobu gone la fukki at ak nangam la am kooku gone la waaw le waaye waaye daal kawtif la moom ginnaaw yàlla nee na maa ko yóbbu avion yi tey ku ne war mos nit mën naa mën naa dem màkkat léegi nii balaa fajar ku ko waxoon mag mag ñi daal dugg ay fas ay gëléem ay at kon ñu lay loolu daal maa nekk tey jii maa nekk moom kon sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal bokk na ci lam ko jox sëriñ ja muy julli gi ñu doon wax sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem mi ngi wër mi ngi wër xadra yi malaayka yi ku ne gis ñu boof ñee tax ñu daa daa gis ñu taxaw di wéy rang rek sàppe gis ñu rukon di wéy sàppe gis gis ñu sujjóot di wéy sàppe gis ñu taaya sàppe mu yëngu daal ah waaye li yéeme ne di jaamu yàlla gi daal dafa saaru ci ci moom mu laaj seen Jibril mu ne ko waaw ñu ñu ne ci ñii de ñii dañuy def di di di wéy duñ ko bal mu ko loolu daal neex ko ginnaaw ginnaaw yàlla da koo bëgg a teral yooyu yëpp ak sàbbaale yàlla ne ko ma jox la julli goo xam ne dana boole jaamu jaamu yooyu yëpp nag xam nga xam nga ki man la sallallahu alayhi wa sallam ma daal di big lool waaye daa bari yàlla ne ko juróom fukki julli nga koy def yii bari na de sina Musaa alayhi salaam mi mi dajeloon ca bëti ma ko des ca ca ca julli ga fi mu ñëwee ba ci ba ci asamaaw su jëkk si lañ wax ku dajeeg moom ah yow lu àndaale en tout cas man de yàlla di jox ma sa jiwu sa jiwu doon waaw juróom fukki julli juróom fukki julli ci loolu sa xeet yi mënuñu ko de man sa sa sama xeet moo moo gudd gudd fan ba noppi te mënu ko yow sa xeet mënu ko ah lu may def nag waaw nga dellu dellu ci borom de de demal ci xadra ba ne ko gaa yi mënuñu ko waa dem su borom wàññi ko ba muy ñeent fukk ñëw mu Musaa ne ko yii ñeent fukk bu mënuñu ko de daa bari na ñeent fukk julli par bés parce que man daal di yéegaat su borom ne ko wàññi naa ko ba muy fanweer mu dikkaat Musaa ne ko yii bari na daa bari bari weer sa gaa yi mënuñu ko de xam nga si fii nag Moussa xam na ne jamono da dana dana avancé avancé boo xam ne nit ñi duñ mën a jox boobu temps maanaam léegi ab jaamu yàlla non non déedéet duñ ko man mu dikkati mu demaat suba bi ne ko léegi ñaar fukk Moussa ne ko yii ne ñaar ko ëpp na mu dem dikkaat mu ne ko fukk Moussa ne ko yii fukk ëpp na Moussa Sina Moussa ku jàmbaar la. sallallahu ma demaat yàlla ne ko juróom mu dikk Moussa ne ko ëpp na de juróom juróom mënuñu ko mu ne ko ah rus naa demaat nag waaw sallallahu ma dafa bari kees sax waaye nag juróom fukk na bu ko wàññi ba juróom nag loolu loolu loolu doy na nag loolu loolu doy na moom waaye yaa ngi seetlu juróom yi rek ni mu diisee ñenn ñi Ndakaaru ñi waa waa Ndakaaru nit adduna yi tëruñu ko juróomi juróomi julli yi mënuñu ko julli am nguur nguur yi sax da ngay def ñoo xam ne dañ naa lañ koy def ko ma lan agro bàyyi ba wàcc julli lépp kon si na Musaa kon alayhi salaam mat naa ñaanal lool yàlla dolli koy leer waaw dañ ko jàngal tekk lixlaas si ma ne ma xuloo la wax dara son
yaa ruux yi loolu si na Moussa alayhi salaam ndax kat moo moo na noppal kat si nag Moussa mat naa ñaal ndax moo na noppal léegi nag kon julli gi julli gi bi bi sallallahu alayhi wasallam nag dikkee nag daal ne indi na sëriñ julli gi googu su borom jabal si si naa Jibril moo ko ko jàngale sallallahu alayhi wasallam daal di ne sallu kama ra'aytumuni usalli maa ngi julli topp leen ci sama ginnaaw profitoon julli nag farata yeeg sunna yeeg yooyu borom xam yi ñoo ko génne ginnaaw ba waaye sallallahu alayhi wasallam moom waxut farata ak sunna loolu loolu am solo parti sunna yi baax na ndax julli gi li li ci mënta ñàkk mooy mooy farata sunna mooy li koy defar kon kon loolu kon moom xàmmee ko ba ba soo fàtte woon sunna xam ne julli gi yàqul loolu xam xam xam ko kon baax na waaye nag utilisation moom dafa simple rek moom ma daal sa Sénégal bi alayhi salaam julli na ci sama kanam ma gis kon yéen julli leen ci sama ginnaaw moo tax kon moo ne si tuwaa waxee ca tëru si xaar naan imaamul aw fi nee na ku ku julli ba ba ba noppi ku julli ba noppi te xamoo farata ak sunna yeeg nangam julli woo su sëñ bi neen kooku rek xam naa lëm ci jublu woon rek mooy daloon jajjee waaye noonu rek la te ndax sallallahu alayhi wasallam jànguluñ loolu waaw jànguluñ loolu kon nga julli kenn ku ne ci noonu ilimaan yi ngay julli si seen ginnaaw bu yàggee da da nga mën a julli waaw daa julli julli te ci farata ci alxuraan yi mooy nga nga nga mokkal fatiha bu dee mën nga ko mokkal ako saar fatiha su soo ko su soo ko mën a mokkal ma ci farata soo ko mënta mokkal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim nga mokkal ko soo ko mënta ma ko nga ne subhanallah subhanallah di wax subhanallah ab diir sujjóot dangam waaw loolu it loolu it mag moo xam ne mun di mukkul fatiha waaye subhanallahi wa bihamdihi subhanallah si mokkal ko xanaa mën na ko mën na ko mokkal kooka mën na koy def xam ne alif laam miim mu gàtt moomu te tey alxuraan alif laam miim soxna sa bu taxawee naan alif laam miim alif laam miim bam ne ko mu sëgg yëddoo na waaw waaw loolu kon moom julli na julli na waaw alif laam miim sallallahu alayhi wa sallam nee na du araf alif araf la laam araf miim araf nee na ku wax alif laam miim am nga fanweeri yool kon moom mag moo xam ne mënoo wér yenn yi xam naa lay la moom ñëpp ko mën a jombul waaye alif laam miim yomb na moom soo nappee nga di ko wér alif laam miim téeméer yoon rek waaw loolu kon mu nekk yool bu rëy rëy bu yaatu kon julli gi day farata moom xam nga sallallahu alayhi wasallam lu ko yàlla digal fii la koy fekk waaye lee julli moom da ko yóbbu ba ca xadara yu tedd ya wéet ak moom kepp seenaa ji bi sax ni ko fa kon lu fonk la wala kon julli moom force la bépp jullit dé dégg sax wala moom wala daan jullit jullit mooy kuy julli wala moom moom moom da ko firi moom firi mu rafet mooy kuy julli jullikat bi mooy jullit sa sa ma nee woon na li nga xam ne mooy mandargam jullit mooy julli waaw daa ne nag jullikat ci am mbaar daa mel ni ay jën jën yi taxaw mbaar mi te mooy lislaam mbaar lislaam mooy julli képp koo xam ne dangaa màbb julli màbb nga lislaam kon kon moom julli moom farata la farata nag mooy loo xam ne def gi mën nga cee bañ am sax benn yool waaye dalaa war kile bind di la dundal jox la ruu nga nekk fi di kii mën a jox si yitte jox lay bët jox tànk loxo nangam kooku moo ne la kat jullil ma juróomi yoon ci ci bis bi kepp soo nappee mën ngaa bañ a defal leen waaw waaw moom li li mu la digal moom dëgg mooy loolu nee naa yàlla day farata yi ñu sant boo ko seetloo ak a simple ak a tuuti bariwut de fi toll nii tey sunu ma màggal yi gàmmu yi nga gis nit ñi jàng xasida yu bëree bëri jàng alxuraan yu bëree bëri moo ne day yàlla digalu la ko sëñ Tuubaa digalu la ko faqara faqara u maa tayassara la wax alxuraan moom da yàlla danañ alxuraan jàng ci loo mën alif laam miim ko jooju rek su ko waxee baax na ixlaas moom ñetti yoon moo gën a foora ci for man defe na kaamil ki doon jàng lixlaas ak ki doon jàng suuratu baqara ki ki ki jàng lixlaas ñetti yoon moo ko ëppale fuuf ko kon mbir bi kon du ci du ci ak bari waaye sellal sama bàyyi nee na woon takalluf yàlla néew ci yoon loo attan doxe na nga mane daa tax nga àgg te àggaale la nga yor ak gén wu wu rafet kon julli moom farata la neex na xari la léegi nag yow ab jaam yàlla nga mu lay xéewal arrahmaani xéewal yi yi ñu jëfandikoo yëpp moo na ko sarax man da da danaay sant xéewal yi ma yàlla sarax danaa koy sant di ko feddili dana ko jox ma ma muy busa soxna sama yoroon joxal ne léeg-léeg rek mu ne ma ah sant yàlla ma daal di am am am loo wax dana ko wax ne ko yow dag ma koy fàttali sant sant gi ndax xéewal gi ma jox xéewal gi ma jox daa bari ci man ba ëpp ëpp na ëpp na su may wax xéewal gi dëgg xéewal bitti gi sax daa daa ko sant moom baax a baax xéewal bitti gi nii waaye xéewal biir gi nag laa gën a sant foofu moom moo ma gën a jaaxal moom nu ma koy sante ndax dama jaaxal kon julli farata la obligation la maanaam léegi waaye nag da ngay dem ba am fukki at ak nangam fukki at ak ñaar am na ñaan fukki at ak juróom-ñett jamono ji léegi dafa fukki at ak ñaar ñett ñeent juróom rek man da gum ngóor daal su feeñee ci ci ci ci sa jëmm yow léegi kat mu kallaf nga kon ab lay loo mu kallaf nga wala lay loo daa war a julli force moom Cheikh Saw moom si si Cheikh Saw day day day jàng julli Cheikh Saw moom moom julli gi waru ko de sëñ pan pan pan julli gi waru ko Cheikh Saw day day entraîné wu rek ba noppi di barkeeloo Cheikh Saw moom Cheikh Saw fu ñu toll bu jullee Ablaye Lo julli Cheikh Saw ko ëppale Cheikh Saw yow yaa ëppale Ablaye Lo Ablaye Lo moom force lay julli Cheikh Saw moom day julli coobare woo ngir daa bëgg bu demee ba ba ba màgg tàmm ko kon julli moom farata la julli boo gisee ni ni mu tëdde maanaam alxuraan lu mu néew néew soo xamee dara da nga ko ci jàng faatiha mooy mooy ndey téere bi da nga ko ci jàng ay yoon rakk bu neen da nga ci jàng saaru alxuraan xool de ci sansem di woon na araf boo jàng ci alxuraan ñu fay la fukki yoon kon yow sa sa yow kon dana bari jàng nga fatiha nangam yoon jàng nga awsaar nangam yoon ah wala kon loolu loolu kon moom moom xéewal la bi ngay bi ngay rukkoo yaa ngi sabbal malaayika yi yi nga xam ne ñoom dañuy rukkoo rek ñoom di di sabbal yow it yaa ngi ñoom ànd ngeen nga ngay sabbal boo sujootee yaa ngi di sabbal malaayika yi nga xam ne dañuy sujoot ñoom di sabbal di wéy yow it yaa ngi sabbal nga xamante ne sabbal moom li muy firi mooy dàq lépp loo xam ne am xel dana ko jort wala dana ko kii ci yàlla te du noona sabbal subhanallahi subhana rabbiyal a'la subhanallahi wa ci wa bihamdi subhanallahi asim sabbal yëpp rek sabbal gu nekk li muy firi mooy maa ngi dàq ci sama xel lépp lu juunoo ak la yelloo fa borom bi kon kon kon kon sabal am solo la day day raxas xol bi day raxas xel mi kon kon sabal kon moom so subhaana rabbi asimi ci ci bi hamdihi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ko wax téeméer yoon nee na kenn du la ëppaleeti lu mu def ci bis bi xanaa ku ko wax lu ko ëpp abay abay loo yéen nga dégg gaa yi subhaanallahi subhaanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim nga wax ko ci téeméer yoon loolu bu gudd gudd la saa ba nee na ah xanaa xanaa ku ko ku ko wax lu ku ko wax lu ko ëpp ndax tasbihaat yi day day sellal ab xol day sellal ruu nga xam ne ne kon boo seetloo ju julli nag su borom mi mi mi ñu ci jàngal ak àndandoo ñun julli ñi ànd bu rafet. léeg-léeg de bu bu bu bu yëkkati xaside yi ginnaaw julli maa ngi dégg ñoo xam ne dañuy waxu ci kaw. kaa ne ay kaddu gu génn déedéet kaddu gu wut a génn dañ ko war a riim àndandoo ko kaddu yëpp ma maase baaj bi maase kooku bëgg kaddoom feeñ déedéet loolu loolu islam nanguwu ko islam da da daa bëggoon ñun ñëpp ñu maase kenn doo xam kan moo doon jàng wala da day day day dem sax ba mel ne ñëpp benn baat la fekk ne kat ay baat yu bari la kon allahu akbar daal di taxawal ilimaan ji def ko ñi ñi ci ginnaawam tolloog moom ñu ñu daal di sujur sujur bu rukoo rukoo bu jëkk sàpp si rukoo ñëpp tolloo rukoo dañoo wax ne nag ni ñu rukoo yi mooy da ngay sëgg sëggin woo xam ne bu ñu jëloon ab kaas def ci ndox teg ko ci sa ginnaaw gi du tóoru maanaa tey ginnaaw gi day day mel ne lu tëdd ginnaaw gi muy tëdd nga daal loolu mooy ru ko am na ku ku ku ma wax fan yii ne am na am na ñuy wax ne man sama julli gi daa gaaw waaw loola de waaw xam xam naa loolu loolu léeg-léeg day gaaw lool léeg-léeg mu xaw a yeex léeg-léeg nga nga gis sax fatiha ji fatiha ji mooy gën a gudd ci rakk yu mujj yi mooy gën a gudd rakk yu mujj yi loola moom ci ci ci ne may teew loola loolu moo xam naa léeg-léeg sax moom ma bëgg koo jëmati ni waaye mënuma ko waaw léeg-léeg nga xam ne moom kon waaye nag ginnaaw moom jàng naa faatiha ako saar ba mat sëkk léegi jeex na jeex na de da dama fay taxaw léegi nekkat ginnaaw gars yi ne ñu sama kii bi da da gaaw naa ko yeexal déedéet waaw loolu moom kon ci man la léeg-léeg day gaaw léeg-léeg mu yeex waaye lépp rek na mat na nga jàng fatiha ba mu jeex bu dee mën nga jàng fatiha laa wax de na nga na nga jàng aw saar saar wo mën di doon nga jàng ko ba ba mu jeex léegi julli su borom mi ngi ci jàngale lu am solo imaama président tey njiitul mbooloo nan lay mel mbooloo ku leen jiite nay mel yàlla ne ku jiite mbooloo da ngay mel ni ilimaan ilimaan de bi mu taxawee naan gaa yi sàppe si ndax kii na sàppe si ndax mat na ndax jekk na parce que ma ne woon na sàppe si na jub kocc ba noppi te du am ay diggante ndax seytaane mën naa ne ci mën na fa dugg kon da ngeen di da ngeen di jege sësaloo waaye nag boo dee nag ab lay loo yow dara dara Cheikh Sow ah bu bu la si mu rëkk nag bari ko gaañ du jubluwuñ ci loolu maa daal dañoo bëgg rek ngeen xaw a sësalo noonu léegi yow ilimaan ji su su su geesoo noonu day na gaa yi di man li ngeen xam dong laa xam aw saar dong laay jàng wi ngeen mokkal dinaa fàcce ñu ko ah mu waaw xam nga bu dee day biral moom nuñ dañ ko dégg maamun waa ne allahu akbar gars yi di ko déglu mu jàng aw saar fatiha ba mu àgg ñu gis ne ni mu ko jàngi baax na mu nappi teg ci aw saar ñu gis ne ne ni mu ko jàngi baax na ñu àll koy nangul mooy yow président bi li nga xam lañ xam kon yow léegi saa boo bëggee juyoog lañ xam nuñ dañuy lànk julli gi nuñu nuñu lànke nan la julli gi jàngale bu kilifa gi juumee nuñ koy def boo dee julli allahu akbar timis faatiha nga ma di ko yàllu ñu ne ma subhanallah jëkkoon saxaaba yi dañ doon dóor seen pooj yi déedéet tout tàccu tàccu di dóor seen loxo yi sax ma julli daal di ne déedéet loolu yëfi jigéen la jigéen ñi ñooy def ni ñu pooj yi naan nii di wax seen morom ji di di wax ki ci kanam yow ko yow ko da ngaa kii jamooy waaye bu dee góor naan subhanallah ba ba ne subhanallah ci biir julli gi dana xam ne kon dafa juum jamooj bu dee da doon tari maanaam nga ne ko subhanallah te xamu ko te xamul loo jublu ci subhanallah ji nga ne ko ah ci nga wax bu dee aaya ba daa am aaya bu mu tëb nga wax tudd ko boo ko tuddee moom dana dëppaat kon alxuraan mi ngi jàngal ne kat su boobaa kon seen seen kilifa gi bu juumee nan na ngeen ko gàgganti ci nan subhanallah mu xam ne dafa juum xamul li nga wax nga tuddal ko mbir ma kon di nga kon islam kon li muy wax kon njiit li président bi bu juumee ne ne ko ah président subhanallah li nga waxoon kat ak li nga bëgg a def bokkut léegi loolu su su su limaan ji nag wéyee limaan ji allahu akbar tàmbalee di làkki français ah subhanallah limaan ji mën naam daa amoon abletion français bu bu bu mu doon jàng nga da ko bëgg a mokkal lecture dikk for maanaa léegi di ko waxaale ci biir biir julli gi nga ne ko subhanallah xamu ko ñu maga ci la soxla moom fàtte na ne kat day day julli kon nu ñuy def noonu dañ ko fay baax ne ko sëñ bi yow kat julleetoo doo suñ ilimaan taxaw fay julli fi ñu toll li li li taxal islaam nangu ñuy folli ñuy folli njiit mooy loolu njiit loo xam ne kat daa wuute ak liñ bokkoon tëral su ko wuteeg moom kon ma ma mes naa wutaal beneen beneen njiit ginnaaw bañ ko sàbbalee ay yoon te xamul li ñu wax kon imaama kon imaama kon imaama jiite ma mes mes na ko jàng ci biir julli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ja ak ihdina siraatal mustaqima ja mën nañ cee jàngewaat ne nun ñëpp benn lañ ci imaama maanaam kat léegi politiciens yi dañoo waroon ne ah kenn ku nekk loo xam ci sa morom ci aw yiw nga wax ko gën a yittewoo yiw wa ci safaan ba ah nun ñëpp di yaakaar naa budu yaakaar na sax nun ñëpp di réew mi lañ bëgg a jagal kon day yow yàlla idan saxam sax ma gën ñu ci yoon wi nga xam ne ci lañu mën a jagale réew mi waaye kenn du nekk fee di xas morom ja ci lislaam lislaam li li li ñu jàngal lu sell la yéen wuutewu leen ci njëriñu réew mi da ngeen a wuute ci nu ngeen ko fu ngeen di jaar ba njëriñ la ma ma mën a ñëw maanaam xalaatiin yi ngeen wuute wa ban xalaat moo gën moo gën a baax ci réew mi ci ngeen wuute waaye yéen ñëpp li ngeen yéene réew mi moo moo jàmm kon léegi foofu nag siraatal laziina an'amta alayhim am na ñoo xam ne da dañu wun góor gi bëgg ko amoon na nag sumbam dane ah amoon na day ko fi jaaroon ñu ñu xewele woon naa ko ba mu jot ci ngóor gi mu ne waaye ba mu ca jotee xam nga nu mu defal xayril maxduubi alayhim daa mujj doon ab sànje ba ma mere ko mu al ko wala daal liin am na koo xam ne for daa jaawale ngóor gi ak moomeel boppam kooka al ko yàlla na nag yéen ñii di wut ngóor gi di xëccoo baleen xel ñaar ñooñu almaxdubi alayhim ak ak daalliin ñooñu maxdubi alayhim moom day mel ne ñoom ñoom dañoo bëgg alal ji lekk lekk ba sonn ko lekk lekk lekk lekk ba nit ñi naan ay waay day na day na dégguñu nit ñi li ñuy wax day na day na dégguñu ko ñooñu xam nga ñoom la jëmb di for nit ñi mel leen wala da ak daal li nag ñoom mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ne sax nguur gi fa ñoo ko moom kon kon léegi julli mi ñuy jàngal kon nu ñuy jiite mbooloo nga xam ne ne ne kon saa bu ñu dee julli di di di teewlu fatiha bi noonu mën naa am di teewlu ilimaan ji di teewlu maamuum yi di teewlu maamu maamuum yi julli jàngalaat nañu ne kat ah président bi kat maamoom yi dañ ko war a déglu di ko saytu di ko soppoo ndax mooy tax saa bu juumee ñu man koo sabal président kat ah daa mel ne yaa ngi bëgg a wàcc yoon wi de taxul tuuti mu ne ah ñu ko xoolal sa tàgg tere boobu ci ñoom bay toli di wax ci ci télé bi daa mel ne oto banque yi ba bëgg laal de kon kon kon moytu loolu kon noonu maamoom yi noonu islaam ne nañu ah yéen nag kon yéen ci am réew doxaleenu réew nangam da ngeen waroon a gëstu nag ba xam am réew duñ koy yore lu mu ñëw ñëw ngeen xam ci dara ba pono njiitul réew mi su bëggee wàcc rëdd wi bu bëggee àgg ci rëdd wi ñu gaaw wax ko gaaw kon day benn kon julli kon moom tedd na lool man nga cee jànge loolu kon nee naa ne yaakaar naa ne yaakaar naa ne yaa ngi koy jàngee kat noonu ñëpp la loo yéene sa bopp yéene ko ku sa morom moom moo tax ihdina siraatal mustaqiima noonu ñëpp ku ne buy julli yaa ngi ñaanal tiyaan ba xaadir ba sasari ba yaa ngay ñaanal sax salafiste ba fi toll képp kuy julli ci noonu yaa ngi ñaanal salafiste yi yàlla dimbali leen képp kuy julli yaa ngay ñaanal Filistiin yàlla na ko yàlla may doole ba mu gañ xeex ba muy xeex ak Israël kon kon kon yow julli julli saa boo ko koy def ñaan yooyu yëpp yaa ngi koy def yaa ngi seetlu bu dee ilimaan ji day biral bu ne wala daaliin ci gannaaw ñëpp ne amiin ndax faatiha ak ñaan la moo tax moo tax ñu ne ci gannaaw ilimaan ji dañoo war a wax amiin amiin mooy lan indi amin amin baat la boo xam ne ci làkk yëpp la am français anglais séeréer bambara joola wolof ñëpp amin la ñuy wax waaw kon julli ngoog lu lu lu mat a fonk la lu lu mat a baxeel la sëñ Tuubaa am murit kuy tuddoo sëñ Tuubaa war ngaa fonk mu julli ndax kat sëñ Tuubaa sa sa mooy sangam julli na fu ne moom julli na fu ne fu mataa gis suuf su ne ner ab beñ bu rafet suñ tubaab lam fa yéen lépp mooy julli mooy julli teg keroog suñ jullig mbay affaire mbay turi jullig jullig ñàgg ka suuf sa bañ taxee foofee rek di wax ak waaja suuf si sama xel daa dem ci suñ tubaab suuf si ni mu rafetee c'est du ci la suuf beñ la su neex a julli ñàgg oh neex a julli lool ndax ne yow booy julli jëru sax ngay lal dara waaw waaw waaw sëñ tubaa moom gis nga de ba ba ma taxawee man sëñ tubaa laa la sama xel dem sëñ tubaa la sama xel dem ci julli nga xam ne bi muy dem Mauritanie ànd ak naari gànnaar naari gànnaar yi sonn lool sëñ bi fa mu àgg mu ne neer rafet lool di ab beeñ mu ne fii di xanaa neex naa jullee daal di wàcc julli julli julli julli naa fi daal dem te kat da daa yendoo koor ba mu demee na naar yi ko doon gunge dañoo sonn ñoom tëdd na la seen sëñ bi moom moom fanaane naa fi la ak jëmm jën a mel tuuti tàngam nangam nga xam ne kon julli noonu suñ tuwaa julli ca biro ndar baag julli ca géej gaag suñ si suñ tuwaa moom julli fu ne moom fan la julli waaw julli ci ab lal ndax nii biñ ko def ci bato bi tubaab bi say say lañ tubaab yi dañuy ñëw di saw ci néew bi ba ba mujj mënatut a wàcc lal bi muy jullee ci ci ci ci kaw lal bi xooku kooku kon yow ku ne mooy sa sëriñ mooy sa référence mooy sa royité yëpp yow war ngaa fonk julli suñ fàllu nag nee na du tata anu nee na julli mooy liggéey bi li ñu li ñu indi ci àdduna mooy julli lekk ak naan yëpp ngir mën a julli la liggéey ngir mën a julli la lépp rek looy def rek ngir mën a julli la sol mbubb ak sol yi daal ak lépp mën a julli la waaw mën a dem dal yi mën a dem ci jàkka ja nagam waaw waaye moom kon liñ fi indi mooy julli ndax julli jaamu yàlla yi malaayka yëpp la def sentees mu nekk wenn say su borom sax na ko kon yàlla nañu yàlla defal tawfeex ba guddi gii sëriñ bi fi sallallahu alayhi wa sallam indi woon mu des ci suñu loxo di wéy ba di dugg yàlla na murid yëpp di julli murid yëpp yëpp yëpp yàlla nañu julli yàlla nañu julli yàlla nañu julli ba suñ tuwaa gërëm suñ tuwaa bég yonent bi alayhi salaatu wa salaam bég yàlla bég wasalaamaaleykum taala wa barakaatu
ndax riñaan riñaan bi ndax Màkka la woon wala Madina riñaan bi riñaan bi ndax Màkka la amee woon wala Madina la amee madina woon madina Madina am déedéet déedéet makka kay makka kay ah dimbali di di di dimbali nga ma kay minal masjidil minal masjidil xaraami ilal masjidil aqsa waaw
riñaan mu fa la amee waaye saa salaam boobu mi ngi mi ngi madina ñu Madina
saa salaam bi mu jógee madina moom ci guddi gi noonu la la la ko Seydina Jibril yóbbu makka makka makka ji ma mu dem makka ci ca xaram ba daal di jóge ci xaram ba nag dem ca masjidul aqsa gaa yi sax sax dañuy wax ne masjidul aqsa gaa yi ci wérante ba xam na ndax moom di diggante ba am nañu aan diggante Madina ak Màkka fi la fi la masjid ba nekk bi salaa salaama ci la ñaane am nañu ne moo mooy rek masjidul aqsa waaye mooy mooy daal masjidul aqsa rek mooy masjidul xuts bi di ñu xam bi nga xam ne waaw waaw maanaam ñi ngi ñiy nettali rañaan dañuy dañuy nettali ni yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam so- waaw tolloon tolloon na foo xam ne dañ ko doon wan yenn melokaan yoo xam ne nit ki bu ko melee ak man maanaam ak jaaj la daal ci bu ko nettalee nit ñi pour ñu pour ñu moytu ko moytu koo melukaan
waaw xam xam naa yonte bi bay saam doon nag yër na sawara sawara waaw
si si seen a jibril wan ko ñu seen sawara mu xool ña ña fa nekk mu laaj ñi lu lu fi indi ñu ne ko moom del ku fi nekk jigéen la fi indi jigéen jigéen la jigéen yàlla da ko may pexe mu rëy rëy moo tax jigéen mat naa moytu lool góor ak jigéen du sax jigéen ñi rek waaye góor ak jigéen ñoo mar ñoo ñoo ñoo war a sorente sorente waaw ndax alkande li da cee yomb am na benn xale mbàkke mbàkke bu woo xuma démb la xuma ki démb di laaj xuma ne daal nee na xuma ne dañoo bëgg a fa- dafa am fatuwaa ci liñ nekkoon képp ku njaaloo ñu far maanaam ñu dindi dindi la ca góor góor yàlla ya dafa am am na am na nu ko waxee de maanaam du du duutoo doon waliyu déedéet ñu far saw tur ci turu waaw yàlla waaw moom moom na na mu ko waxee waaw xam naa mën naa li ñuy dañuy digg sama wax yi xam naa di ci dagg ay baat waaw daa jàpp ne képp ku ku njaaloo duutoo doon waliyu te te waxuma loolu mag ñi dañ ne ku ku mu fekkoon tey nga nga nga ci nga doon waliyu nga njaaloo ñu far saw tur ci liste góor yàlla yi xam kon lu ruy ni kon de waaw waliyu di kàngam bakkaar benn bakkaar bu mu def ñu far ko ci liste ba loolu saa salaam kon wax na ne kat góor ñi ñi ñoom fas yéene ak jigéen ña góor ñi boo laajee ne lu fi indi ñu ñu jox leen jigéen ñi jigéen ñi ñoom li leen fa indi mooy nee na ñoom da- da- dañuy weddi njëkk ñaari mbuus la ñor mbuusu ndeyjoor càmmoñ mbuusu ndeyjoor bi lu bënn tu tu tu- tum naa bënn na bu càmmoñ bi bi bënn bu ndeyjoor bi loo leen jox ci aw yow ñu def ca daal di bënn turu càmmoñ bi loo leen def ci lu bon lu mu néew néew da ngay def ci moom ngir bés di di bi sa tax su su bis baa ñëw ñu génn ko.
tegal la ko ni la nangam moo tax su seen blaat risa taxaw an waxoon lu am solo ci ku bëgg a yor jigéen ne nee na jox ko loo man lu ko waral day fàtti démb xeeb tey fekk bi ëllëg yàqatu ëllëg.
kooku nag mu ne ku ku koy defal defal ko loo man de
waaw waaw waaw am na ci nag ay yeneen yeneen yu- yu- yu jugaay wax isra seen xisas yuñ ciy wax nag waaw
gis naa ci boo xam ne xisa bu gudd la waa Abdoulaye ibn Abbas ko nett li waaye da ngay xam ne waaw
xamaa daal li li dal siira daal siira dafa bari yu bari yoo xam ne daa am ay yëf yoo xam ne xam naa waaw ne nekk ni kat yee ko mujj yokk ci yëf yi yokku ci waaw.
waaw waaw waaw xam naa yéene ji ni ñuy yéene ci julli daa mel ni ñu bëri xam ne man.
Hmm?
ni ñuy yéene ci julli.
julli waaw ni ñu ci yéene daa mel.
waaw ndax waxtu bi xool ko ba xam
nee na rek.
mu ngi dox ah ak maanaam dama ko daal de dama daal fii de
ni ñuy yéene ci julli ak turu yàlla.
waaw waaw ni ñuy yéene ci julli ak turu yàlla yi.
waaw lu mel ni Maxos ñun la boo dee boo boo boo ko dee def booy tàmbali na nga na nga na nga yéene nangam ak nangam ak nangam.
waaw waaw léegi yooyu noonu ndax saa boo koy def rek da ngay da ngay da ngay tudd lépp wala boog da nga koy wax benn yoon nga xam ne loola mooy yéene jë boo defaat beneen yoon da nga koy jaww.
xam nga xam nga maanaam léegi bu dee da da ngay baaxoos yéene ju bés bu jëkk bi da ngaa fas mut mutu la xan yi nga xamante ni koor gi ñëw yàlla nga fekk jàmm koor yi ak ak koor yu bëree bëri dama salaam amiin te te woor ko te yàlla nanga ko amiin te ful ko gërëm ko amiin maanaam suñ ne we- weeri feeñ na suba la koor waaw.
man ngaa daal di yéene ni yéene na ma weer ba woor ci ramadaan jeex na waaw.
ndax ñu ne kat wóorut boo dee guddi gu jot la la laa koy def waaw.
guddi ga mën naa am bis boo xamante ne da ngaa sonn nekk ci yitte fàtte ko waaw moo tax it maa ko si moom waaw.
ba- bu njëkk bi bi ngeen ko jëkkee fas rek saa soo ko tàmbaliwaatee fasos ba ma ma nga fa ma nga waaw ba teew nag parce que bu dee nag da da nga koo bàyyi nag ab diir waaw.
kon kon kon yow bàyyi nga ko lu ëpp bés kon li gën mooy nga yeesal pas-pas bi waaw comme waaw àtte koor gi rek.
Hmm?
comme àtte koor gi rek waaw nga ko ci yéene.
ok ok ak li ñuy wax teewlu comme ni ñuy teewloo si julli gi nii ñu bëri naan boo teewlu sa tuyaaba yi day wàññeeku loo ci teewlu nga ci xam ak yu mel noonu.
xam nga suufiyanke moom soxlawut tiyaaba waaw.
suufiyanke day jaamu gi ngir yàlla kese yàllaa ma bind moom ma jënd nga aw fas ca marché ba te fas nga bind ko waaw.
da ko jënd képp Hmm.
ba noppi di ko liggéeyloo fa fa fas yi bu tool bi noppee danaa danaa la jox ma ma ngooñ mi déedéet.
yàlla kon yow yàlla moom moo nu moom waaw.
danoo bind maanaam su su su su fekkee moom day day julli képp noppi ca neen danaa danaa wax kenn yéen julli murid mooy julli ba ba la ciy génn yow seen dikkul ci dañ ko ne comme du ko ko kooku kooku moom yow ab jaam nga bu julli rek jeex na kon moom kon moom maanaa léegi ginnaaw julli nga daal génn ca ndax nag bu dee da da nga ne yàlla fay ma ah si la si moon bi si waxoon na daanu waaw.
yàlla kon boo dee ko fay ma nag ah da koy seet da koy seet waaw.
te mën naa bu ko seetee du- du baax du ko julli gi su su su fekkee yu tedd yi ñoom kàngam ya ñoom bu ñuy julli dañuy teewlu loolu nag entraînement la rek de ñoom entraînement mën naa am di di góorgóorlu ba yàlla may leen ko et que karaté karaté bi ngeen def waaw.
bis bu njëkk ba mu mu mënoo du ñaare ba ngay tàmbali ni njëkk la ba nangam noonu rek la moom la.
waaw waaye nag eh, tey boo déggee mag ñi la ñuy wax ñoom la bul jàpp ne yow da da nga koy daal di am tey kooku moom kooku moom loolu moom waaye nag yow daal li li la war mooy waaw.
charia al islam yi li mu wax allahu akbar ak salaamaaleykum jë salaamaaleykum.
lépp mat jeex na julli nga
léegi bu dee ci suñu jamono jii dañuy faral di nekk li ni am na ci ñenn ci xale yu murid yi ñoo xam bu ñuy bu ñuy julli dañuy tari xasida itam loo ciy leeral la.
te te te te te xam nga kooku moom julli moom li yàlla xam nga ju- julli moom waaw.
sëñ Tuubaa da ko fay fekk man ñu fekk ko fi seen abakil si deex le sëñ Samba Rezano di wax naan diinu naa haada mabniyyun ala naqli la ala munasabati aql suñ diine ji moom ñu ngi ko tënk ci diw nee na diw nee na ba yow ci salatu ala al islam waaye du ne da da ngay xaar teg di teg julli moom amut xaar teg julli moom ku kuy julli alxuraan képp nga mën a tari di julli boo ko tariw julli woo comme neex nag nag waaw waaw comme neex bu doo julli comme neex doo julli comme neex nga nga julli di tari xasida as kay comme neex nga tari ko di comme neex nga ci ngay tari silabet yaa xam waaw waaye julli woo yow julli woo waaw ok waaw nga xam na léegi boo su jootee di ñaan Hmm.
ndax ñaane mën nga ko def wolof ñaane wolof ñaa julli gi ñaan yëpp mën nga ko def wolof Ah.
ñaan yëpp bo boo demee ba bay ñaan moom waaw wolof ji gën a leer gën a wóor waaw sa soxla yëpp ci nga koy mën a wax waaw.
te da nga digg sax ñaan am ko naan julli di jàng xasida di di- am na ko ma dégg ko ku ma sa laaj naa ko julli o- fi ngay ñaanee ndax mën nga fay jàng xasida maanaam daal oftaal naa waaw
kooku dañ ko déedéet nangam ah ah kay nag ni nga fi mën a waxee wolof ni nga fa mën a waxee bayit woo xam ne daa dëppoog sa soxla
c'est ça.
te te te te te Sëñ Tuubaa nga nga ci ngay barkeelu ci ay waxam xam ne yàlla nangu na ko ba noppi loolu sax gën waaye nag ma ma manis na ko bañ a def Mën na sa ko def.
waaw waaye daal wolof ji moom moo gën moom ndax ci ci ci nga mën a waxee sa soxla dëgg soxla dëgg waaw
ndax xanaa laaj yi moom jeex na ok ñu ngi sant ñu ngi sant bu baax ci wax ndax yàlla kon ndax am na yàlla solo loolu moom wax waaw ndax yàlla yàlla ñu ñu ci yàlla nangul amin amin waaye na nangul luñ ci taasan te ne yàlla ñu ko jëfee amin amin te su boobu defal ñu ko muy ak leer goo xam ne day fekk di wéy amin amin ba adduna tukki su xadim amin
waaw gars yi ko doon ko doon yéen